nañ askanu Sénégal euh, toujours dañ lay suivre maas si si ay kaddu. Mhm. mooy kaddu yi nga xamante ni yëkkati toujours di ko jëmle ci li nga xamante ne mooy nit ñi. Mhm. xam mu nekk loo xamante ne lu ñu rafetlu la tamit ah. mhm. ñu ngi la sant tamit bu baax a baax. Euh, du ma la mën a ñëw invité la te du ma la laaj ci li nga xamante ne mooy ci côté hip hop bi. ci côté mm. musical parce que nekk na loo xamante ni tey bu la nit ñi xamante ni loolu ci la bokk tamit euh, nga def fan yi passé benn projet bu am solo mm. tey maas gis nga daan nga hommage bi nga xamante ni tey mooy li amoon fii jamono ji passé ay jéye yu fi amoon ci gaal waaw waaw loolu tey ban gis nga ci am tey maas waaw parce que musique bu ñu ko waxee message la mm-hmm. message la boo xamante ni da ngay conscientiser sa askan mm-hmm. gis loo xam ñu ngi koy dund te baaxul nga def musique bi pour conscientiser askan wi xamal na leen fii ngeen jëm baaxul wala fi ngeen teg seen tànk baaxul mm-hmm. loolu moo tax musique jug mais musique léegi buñu demee ba ci ay xasanteeg saagaanteeg wax ju ñaaw ci la ko gars yi musique mm-hmm. na looloo tax ñu naan dafa nga xamante ni moo moom lañ ciy dugal loolu moo ci am solo mm-hmm. parce que kundung kundung bi nga ciy teg ay détails la kundung kundung boobu nag comme moom ci sa parce que moo tax buñu gisee xale yi di dem ci gaal yi di faatu te ñun ñu dund ko xam lan moo ci nekk conséquence bi nga xam ñun dund nañ ko bëgguñu suñuy rakk wala suñu ay frère di ko dund kon nag balaa caag ñu jug dénoncé wax ak askan wi ñu xam ne gaal yi ñu jël du solution parce que nañu waxante dëgg abu mënuñu nekk naan dëkk bi dafa dëgër dëkk bi dafa metti mais bu dee dëkk bi dafa dëgër dafa metti tam du gaal yi mooy solution bi parce que chaque jour nga dégg daaw ren liñ ci ñàkk ci ay jeunes kenn xamul nu mu toll faatu gi bëri lool ne espoir lañ woon yoo xamante ne mm-hmm. ñoom buñu demee ba amatuñu yaakaar ci dëkk bi bu ñu bu koo fajee noonu du noonu désert bi du yoon gaal yi du yoon. Mhm. parce que toujours ay risque la. Mhm. Libi li fa dee ay Sénégal kenn xamul nu mu toll. dëgg la dañu waxante dëgg Maroc gi li fa dee ci ay Sénégal kenn xamul nu mu toll li dee ci géej kenn xamul nu mu toll. Mhm. ci ay jeunes yoo xam mënoon nañoo toog satisfaire seen dëkk ba ëllëg teraanga bi ñu bëgg am ñu am ko. mais ñaan naan xale yi tamit ñu toog. parce que dund naa ko bokkul ak foog naag yaakaar naag dégg naa parce que man dama ko dund mhm. def douze jours ci biir géej bi gis fa mhm. lépp xam li fa nekk mhm. kon nag il est temps xale en tant que jeune boo xamante ni seen morom la li mu dund loolu lay wax nekkul loo xam ne damay inventé pour wax parce que man ki demul moo tax may wax mais ki dem ba xam na li ci nekk su demaatee moom la neex mais ki demagul foog nga xamal ko li xew pour moom mu mën a toog parce que dem fa taxut a tekki tekki dañ koy wax mais tekki du xaalis tekki ay valeur la mooy ay jikko loolu la ñuy wax tekki mais pas xaalis xaalis bu la neexee nga jaay drogue am xaalis mën nga sàcc am xaalis mën nga cambrioler am xaalis man nga def sacrifice am xaalis xaalis du tekki tekki mooy jikko ju rafet ak wax ju rafet comme ni ko yonent bi salaam salaam jànge euh, makaarimal axlaaq foofu la ñuy xoolee tekki ndax yàlla bi muy tagg yonent bi tagg ko te da ngaa rafet wala euh, aminataay say ak abdoulaye da koo takk ci jikko ju rafet wa innaka la'alaa xuluqin xasimin kon nag ñi foofu la ñu war a tënku moo war a nekk tekki mais pas xaalis ndax am na koo xam ne am na xaalis te amul ay mbokkam njëriñ mm-hmm. kon kooku tekkeem lan lay jëriñ amul sens te boo xoolee sax euh, gaal heure bi daaw la woon la commencé woon biir septembre bi presque ak biir màggal gi mm-hmm. ñàkk seen bakkan lu baree baree baree baree bare état du Sénégal ban tax la war a def ba loolu dootu amati maas waaw état bi taxaw geen ngeen ci dund ngeen dund nga ci lu def ci ndox mm-hmm. kooku lépp lu mu la ci wax xam na li mu lay wax dëgg la dëgg la waa parce que état bi li mu a def mooy taxawaat jeunes yi rek pour ñu liggéey donte nag état mënut a jox ñëpp liggéey mais jeunes yi ku ci nekk tam da ngay jël say responsabilité parce que man mënu ma comprendre nga nekk jeune am doole am xel am xalaat bëgg xëy di tëdd naan damay xaar état te da nga gis koo xam ne dama bëgg liggéey dama liggéey bëgg liggéey nga jox ko liggéey quelque temps lay liggéey bàyyiwaat ne man liggéey bi dafa metti mais fii lan moo fi yomb dara yomb fii àdduna toujours foog nga sacrifié wu xam li nga bëgg wàññi say bëgg-bëgg di toloree lu baree bari mais tey jii bu ñu see eh, li si jamono tendance bii xew sañse yu bees yi yëre yu bees yi téléphones yu bees yi muy iPhone yi ma doon wax noonu lu ci nekk tey jii nit ñi ñu ngi ci ci ci ci tendance boobu la nekk. Mm. te adduna bi tey dafa dépassé foofu nit da am sa état d'esprit boo xamante ni nan ngay mën a def ba satisfaire sa famille nen ngay mën a def ba sa famille du ñaani wala du ñelwaan yaakaar naa loolu moo ëpp importance. mais nit mën nga bëgg sa bopp di sol lu rafet loolu lépp lu baax la mm. mais na nga am fulla ak fayda di ba ku la gis naw la parce que dañ ne li Thione Seck waxoon am sa soxla làmb sa poos parce que ci saa si jar naa liggéey ba dee muy wax bu am importance boo xam ku ci nekk war nga cee bàyyi sa xel mhm. kon jeunesse bi ñoom ñoo war a am fulla ak fayda bañ a xaar état ci dara ku ci nekk boo waree maçon ji demal maçon ji boo waree di dem na nekk lu set lu sell loo xam di ci mën a am loo suturlawoo am ci loo suturlawoo say parents mhm. parce que tamit bu di fekkee ne tey li ngay liggéey say parents duñ ci sa bopp pour nga réussir parce que jeunes yu bëri looloo leen gaare dañuy liggéey duñ jëmbale seen papa duñ jëmbale seen yaay te ñaan bi foofu la sëriñ boo mën di dem mu gërëm la te sa papa ak sa yaay a ñu ci parents yi loo am bokkal ak sa lay ñaanal chaque jour boo ko defee diñ ci génn ñu bañ a xaar état dara état bi tamit li ñu koy sant mooy lu war roog ak sénégalais yi la mais mi li ko yàq mooy gis nañ ñëpp dañ ko politiser parce que boo demee France xam lu ñu lay laaj ban diplôme nga am ñu jox la lañ lay laaj lan nga mën a liggéey ñu jox la liggéey mais Sénégal lan moo fi am kan moo ma booleeg yow réew mi ba ngay jàng ba am kayit te amoo branlo doo liggéey loolu moomu doxul gis koo xam jàngam yeggul fenn mi ngi liggéey parce que am na branlo mu nekk réew moo xam kumba am nday la ak kumba amul nday te tàmbalewul kuma ci Macky Sall depuis Senghor ba léegi ñu ngi koy dund depuis Senghor ba léegi ñu ngi koy dund kon nag système boobu daf fee war a jóge ñu indi fi beneen système xool gars yi am compétence ñi nga xamante jàng nañ amal nañ di réew mi njëriñ ñu jox leen liggéey ñu liggéey te bañ ko teg ci affaire de politique te affaire de mbokk yooyu parce que am réew dañ koy defar te réew mi askan wi ñoo ko mën a defar tey tubaab bi duñ jugee France ñëw defar ñu ko américains yi duñ jugee États-Unis ñëw defar ñoo mën a defar Sénégal parce que ñoo dëkk Sénégal ñoo xam Sénégal ku la waxul lii wax la ca des day wax lu ko neex ñun sénégalais ñoo mën a defar réew mi ci réew mi ci ni ñu koy defaree mooy ak jamaatu raxma kon ni ko yénte bi waxee woon booloo nekk benn nee na saa yu ngeen booloo suñu borom day def ci yër yërmande kon nag suñu booloowee nekk benn yaakaar naa du nañ mën a defar suñu réew mais bu ñu ko defee ci ay affaire de parti politique ay affaire de xeex xaaral tëjën kii jàppal këli chaque jour ñu nekk ci ay manifestation yu dul jeex amul sens nañ jàppante bëggante soppante defar réew mi mu jëm kanam